asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Masseye dem di conseil municipal ci commune de Kayar dëkk fii Mbaawan juddoo fi yaroo fi màgge ñun dañoo xëy benn bis ñun dañoo xëy benn bis ay bil ñëw ci dëkk bi ñëw ni dañuy terrasser suufu dëkk bi fii ci ginnaaw moo xamante ni bu nekk fii ci domaine national bi loolu bi mu amee ñun man ak Ablaye Gueye bi nga xamante ne tey mu ngi ci prison bi dem nañ ba ci euh, principal concernant muy tinandooy ñu wax ko kii doomam la ñu wax ko ni que lotissement bii nga xamante ni yaa ngi koy mën a fii ci dëkk bi ndax jaar na wala déet lim nu jëkk a wax mooy dëggal bal bi dëggal bal bi nag moom moo xam lim su jublu Sandaga Skel bi ñu ñëwee ci moom amuñu benn éclaircissement leer man ak Ablaye Gueye ñu bind letre monsieur le maire Ndiasseka ñu jox ko lettre bi lettre baa ngi ci euh, bureau monsieur le maire

nee na am na branlo nee na am na ndëgër laay nee na Marème Faye Sall xaritam la li sa pain bés moomoo moom nee na jamaa ji ñuy wa mbaawoon jullee tey mokat ya fa nekk Marème fay Sall moo ko ko may comme toute façon bépp xale boo xamante ni def na fa si loo xamante ni fii naka sudul yoon dinaa la denc ci prison bi léegi xale yooyu noonu muy Ablaye Gueye Abdou Ndoye Abdou Ndiaye Khalifa Diop ñu jël leen mettre en prison ndax dañoo dem ci terrain bi nga xamante ni koroog bi bi li ñëwee ñu taxaw ñun dañ koy contesté ñoom ñu ñoom ñu bind leen convocation yóbbu leen gendarmerie ba léegi ñu ñu tëj seeni doom ñu ngi nii amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan nekk ay xale ndaw ñu ngi ci kaso bi. ñun li ñuy ñaan mooy li ñuy laaj mooy ñi nga xamante ni suñu ay doom lañ ñu téye leen ci lotissement boobu noonu ñu bëgg wax dëgg yàlla ñu ngi koy joytu Macky Sall Ablaye Gueye mii ñu wax. fii Macky Sall bi mu bi mu amee problème ak ak ak ak ak ak ak Wade mu nekk assemblée nationale bi mu ñëwee ñun ñoo ko jëkk ak accueillir fii responsable APR yaa ngi fii muy Abdou Ndoye ñi nga xamante ne mooy Tuna Ndoye ab conseiller la moom ab transhumant la ñëw fii nee def am doole nee na conseil économique social la nekk fa lay liggéey am na doole xale bu ko mutu leen tëj man damaa yaakaaroon ni moom bu nekkee meeru dëkk bi dëkk ci dëkk bi daa jël doomi dëkk bi encadré gérer leen lu dul dëb la di tëj ay prison seen doom yaa ngi ni jaaxle moom dafa am doole ñun amuñu doole nag ñun amuñu doole ay xale la ñu amuñu ëpp jaay nañu doole tëj nañ suñu doom jafe ñun ñun ñii dëkk ñii xale yi mbaaw ni ñëpp nu ñi ku ci am kër yëkkati sa loxo nga xool kenn kenn amul kër kenn amul kër kenn am fi kër ñu jël suuf bi ak a paaraka bëkk lotissé ñu jël ñuy suuf bi dañ koy jël jox ko euh, euh, terrassé ko di ko jaay fi ñu doon boo génnoon fii ci dëkk bi bu ñu defee état des tey man bi ñu defee état des lieux man en tant que conseil municipal dëkk bi terrain yi ñu ci cité yëpp ay doomi ay doomi ay doomi Dakar ñoo ko moom ñun nag ñu ngi ñaan ñun doomi dëkk bi dañoo bëgg ngir yàlla fu ñu dëkk boo xool suñu dëkk bi ay néegu ñax moo fi nekk te suuf saa ni nii nañ ko terrassé jox ko seen ñu dëkk ci nañ ko terrassé jox ko seen ñu dëkk ci loolu lañ bëgg ñun amuñu leneen lu dul loolu nag lotissement bi ñun dem nañ fa taxaw moom euh, def na li def na ay pexeem ba jëlee suñu booy tëj ñun ñëpp nag pare nañu lotissement bi pour mu am len ñun ñëpp pare nañu ñun ñëpp pare nañu ñoom ñu ngi Sambour ab Ablaye Gueye yéen a ngi may seetaan xaar la ñu Sambour 7 ñu ngi ñëw tànk lotissement bi mu ngi egg ñu ngi ñëw ñoom ñu ngi set dem naa démb prison bi ma leen jox lekk garde pénitentiaire bi nee naa ko Sambour 7 ñu ngi ñëw nañ ñu xaar nañ ñu xaar ndax ñun suuf bii buñ ko nar a buñ ko nar a lotissé buñ ko nar a ñun dinañu buñ ko nar a lotissé ñun ñëpp dootu ci yem ñun ñëpp nañu jël yóbbu ñu prison fu mu mën a nekk. doy Thioune coordonnateur APR commune Kayar bon dafa am ay litiges yu bari yu am ci commune bi yoo xam ne président de la république ñu ngi koy alerter pour mu yónnee fii une mission bu ñëw saytu suufu Kayar parce que ñun dañoo jaaxle parce que Kayar suuf yi nga xam ne lañ doon bay foo tourné tey da ngay fekk comme li dal mbaawaan fii ñu digg a borné. te li ma koy ñaan président de la république mu envoyé mission Kayar lu ñu gën a naqare tey lotissement yi fa am yëpp lotissement fictif la na na vérifier ak service technique am au niveau de cadastre wala domaine ba xam benn lotissement bu weesoo bi fi premier maire bi nekkoon bu jaar yoon am na fi beneen amu fi yu lotissement yëpp fictif la parce que dundaluñu commune bi maire bi mooy dundal boppam parce que mooy dundal boppam mooy li nga andi mooy yow tey bu fekkente ni da nga am ab jeune ab jeunesse da war a prévoir fu ñu dëkk mais c'est-à-dire suuf si ñëpp ci am ay droit ñu ko mais bu fekkente ni nit ki dafa am toolam nga ñëw ni ko defaral sa tool Modou defaral sa tool Modou dem dagg toolam léegi bu daggee toolam yëkkati si ñetti parcelle ni may naa ko maire bi léegi population moom dee Modou li des lépp mu jaay ko def ci poosam loolu du yoon ab lotissement dañ ka war a andi service technique yi ñëw urbanisme cadastre ñëpp ñëw ñu lotissé que mu jaar yoon ñuy def appel d'offre jeune bu nekk déposé sa demande ñi ci war a am am ci loolu mooy dëgg loolu moo nekk ci commune bi lëmbe commune bi yëpp moo waral problème bi nekk nii moo law Kayar la départ si fii nag li ñuy appel président de la république ñun gisoon nañ Ablaye Wade ak dooleem gisoon nañ Ablaye Wade ak xaalisam Macky Sall ba muy créé parti am 2009 ñun dañoo du mooy Ablaye Wade ak alalam ak yëpp dem si anam yu difficile booba temps Thiès commune Abla Macky Sall amu fa liste 2009 ba pare ñu demee difficilement dekkal ngor lañ demee élection ña taxawoon jàkkaarloo nag di ko booba nga xam ne xaalis nga nee ñu wan ko ginnaaw di ko jàppale tey jeunes yooyu lañ jàpp tëj leen ñi leen tëj nag ay transhumance la ñu ñëw yoo xam ni Macky Sall leen jox doole ñu jël doole yooyu dañ koy utiliser bu dee loolu la nag ñu ngi koy président de la république maire moo ñu boole moom pour ñu ànd ak moom àndatuñoo moom parce que duñu ànd ak ku ñuy jëf maa ngi jéggalu ndax dëkk bi yëpp maa leen jaboote mbaa jur ku yeewoo si dëkk bi xam nga ne man bëgguma lu ñaaw j'ai fait trente cinq ans ou quarante ans dans ce village jëluma fi tool nit ma fi alalu nit ma fi dara xanaa ànd ak waa sama dëkk si dëkki nu rafet bi man nekkee conseil rural c'était en quatre euh, soixante quinze le comité rural de Diender a été parmi les comités test man njëkk fa nekk conseillère si laa déggee ne ku am terrain te nattuloo ko ut plan yóbbu ko avec ta demande o conseil rural ñu utal la attribution moomuloo dara sama borom kër jox nu ñetti terrain dooma bu góor Njaga Dem dooma bu góor Maysa Dem ak sama doom bu góor Adama Dem terrain Maysa Dem nag mooy bi waral coow li ñoom ñoo ñuy coow kenn ku ne ki may Maysa may na la wala mu Maysa bàyyi nga jaay wëlbatiku nag dañu ne jeunes yi dëkk bi ku bëgg a kër kaay ñëw leen buddi borne est-ce que c'est logique dama defoon ne bu ñu leen woowee en conférence de presse dañ leen di wan des preuves palpables que ne ñoom moom ce terrain voilà notre preuve je vous remercie.